Ah, sëñ bi Ndongo Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secrétaire général adjoint bu CUSEMS ah, ñuy wax ci euh, kàddu yi tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall ba mu xam ne ni kon lu jëm ci wàllub xëy mi moom dina ci gën a farluwaat gën a baral loxo bi bokk na ci euh, li nga xamante ne moom la jagleel éducation bi muy secteur njàng meek njàngale mi lu toll ci juróomi junni euh, jàngalekat ñu mu ne kon euh, dinañ leen recruter loolu noo ko jàngatee en tant que syndicaliste. waaw loolu nu ma ko jàngatee moom mooy que pour man loolu dafa nekk loo xam ne lii lu normal ndax nag ak mu nekk système bi dafa bari jàngalekat yoo xam ni dañuy dem rek ñii suñu borom daf leen di moom ñii dañuy dugg ci yeneen i secteur ndax dégg ngeen ba tey tubaab di wax ni l'enseignement mène à tout aujourd'hui bis boo demoon ci ministère yi wala nga dem ci ONG ak affaire ñu bari ña fa nekk daanaka ci njàng mi dañ jóge ay administrateurs civils yi ay gouverneurs yi ngay gis ak ñu si bare dañu jaar ci njàngaleen bi ba pare def concours pour nekki gouverneur nekki inspecteur des impôts et domaines wala nekki leneen institut et cetera et cetera hmm. donc jàngalekat yooyu nga xam ne nag at mu nekk dañuy génn ci système mais il faut que ñu remplacer leen moo tax gouvernement yi fi mas jaar yëpp chaque année de je dis chaque année dañu doon recruter ay jàngalekat donc yu bees d'autant plus que ñëpp xam nañ ni xale yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci école bi at mu nekk mais at mu nekk seen lim day yokku. Hmm. donc lim yi nag suy yokku normalement. donc ñi nga xam ni ñoom ñoo war a tàggat mais dañu war a suivre dafa war a topp euh, augmentation donc lim boobu donc loolu vraiment lu normal et damay fàttali ni ñun ku ñu déglu at yi yëpp dafa am loo xam dañ ko doon jooy li ñu doon jooy moom mooy que. Euh, lii nekk ci kat ci système bi dafa manqué manqué bu doy waar mooy li ñuy wax déficit criard donc d'enseignants et loolu ñun dañ ko jooy jooy ba sonn dernièrement yéen seen bopp dégg ngeen ministre de l'éducation Mamadou Talla moom ci boppam mu ni dafa demoon ci président de la république di ko jéem a sensibiliser ci ñàkkum jàngalekat ba tax président ci boppam jëloon décision ni def na autorisation pour que ñu recruter trois mille cinq cents enseignants hmm. et loolu dañ si communiquer communication bu bare mais ñun bañ ko saytoo xool ko ba ca biir dañu gis ni kat ñooñu ñu doon wax naan dañ leen di recruter dafa nekk ay jàngalekat yoo en ñu ci bari ñun ñu ngi si gis mooy ñi nga xam ne ñii dañu defoon concours ba nekk déjà en formation ba pare te loolu dafa mës a am donc ñun dañuy laaj trois mille six cent yooyu ñu waxoon ni dañ koy recruter ci boppam ñun dañu bëgg autorité yi wax ñu ana trois mille six cent yooyu fan lañ leen recruter fan lañ leen former parce que ñun ñiy wax yi gisaguñu ko loolu moom mooy benn. maintenant euh, système bi tey fi tey suy fonctionner mais c'est parce que jàngalekat yi si boppam kenn ku ci nekk da ngay yanu loo xam ne lii atuloo ko soo demee ci école primaire dangay ngay gis lu ñuy wax ay classes à double flux wala nga dégg ñu lay wax ay classes multigrades. Hmm. da ngay gis benn jàngalekat bu yore quatre niveaux da ngay am benn classe boo xam ne élève CM2 ngi ci élève CE2 ngi ci xam nga loolu su doon jàngalekat yi doy na loolu du am. Hmm. classe à double flux mooy da ngay jël classe bi nga séddale ko ñaar su ñuy jàngee ba génn abale saal bi ñeneen ñi ñëw dugg jàng li ñuy ñi jëkkoon jàng jàng soo ñëwee ci lycée yi ak collège yi et cetera da ngay gis ni dañuy jël benn jàngalekat man miy wax ak yow nii professeur de français laa woon. français booy xool soo demee ci daara yu digg doomu yi classe bu nekk da nga war a def six heures de français par semaine. alors que man sama maximum horaire bi ñu nekkoon dix huit heures ça su ma amee ñetti classe rek suma maximum horaire matoon na. Hmm. mais léegi comme jàngalekat yu doyul xam nga nan la ñuy def dañuy wàññi crédit horaire bi par classe au lieu que ñu jox ma six heures par classe dañ may jox quatre heures par classe léegi su ko defee fi ma daan yoree ñetti classe léegi damay dem ma yore fa juróom wala juróom benni classe loolu nag day am jeexital si jàngalin bi liggéey bi ni mu doon war a demee dootu ko mën a demee liggéey bi day soxe ba pare ni nga waroon toppe euh, ndongo yi euh, di di saytu li ñuy def institut et di organiser ay devoir yu doy nga xam ne moo lay permettre nga xam lan mooy seen ay euh, manquement di ko corriger institut et cetera mais dootoo ko mën su dee xale yi donc dañu bare te jàngalekat yi donc doyul. yokk ci grève yu dul jeex tamit. mais mais damay ni grève yu dul jeex looloo koy indi. luy indi grève yi xam nga yow sànq si boppam bi nga may interroger ci français. Hmm. yow yaa fi wax ay lenteur administrative. yow yaa fi wax ay yeneen problème problème yooyu su doon gouvernement bi ci boppam saytu na ko ba yooyu amul mais bu boobaa grève du am ñun ay jàngalekat la ñu du ñu ay grévistes suñu demee ba grève rek c'est parce que dañu dem ba sës donc mënatuñ te dama ni jàngalekat yi li ñu nangu ci système bi ba tax système bi di fonctionner parce que jàngalekat yi ñoo gënoon man ni ah ñun kat dañuy recruter contrat moo ñu lié ak état bi hmm. contrat bi ñu lié ak état bi dafa wax ni kat par exemple jàngalekat bi nekk ci daara diggu dóom bi dix-neuf heures la war a am cours par semaine yaa ngi doon wax ci trois mille cinq cent euh, yi ñu promettroon ni kon dañ koy recruter boobu ak léegi gisagu leen dara kon ba xam mën ngeen gëm euh, euh, juróomi junni yi ñu diggaat non trois mille cinq cent yooyu am na ñoo xam ne gis nañ leen mais ñooñu ñu defoon concours lañu nekk ci centre yi ñu leen di forme mais dama ni ñooñu ñun liñ ci gis matul trois cent yi ñu doon wax hmm. waaw moo tax ñu ni nañ ñu wax trois mille six cent yooyu yëpp anamu fan lañu leen jëlee. Hmm. ak fan lañu nekk di leen tàggat. ñun loolu bëgg nañ si teg suñu bët parce que yenn yi nag dafa mel na communication rek pour jéem a rassurer nit ñeeg institut wane nit xëy na peut-être yaa ngi liggéey institut extra mais loolu ñu leeral ko. Hmm. maintenant ci junni yi ngay wax ni wax naa la ko sànq si tubaab nee naa la ñun euh, ay wax kese ay annonce def ñu fëkkul man dama koy wax très souvent ay ministre ma leen ñun dañu perdre suñu naïveté ñun léegi dootuñu juger kenn dootuñu jàpp kenn ci li muy wax déedéet ñun ñoo ngi jàpp nit ci li muy def gis nga acte yu concret yi nga xam ni moom la nit di poser gouvernement bi di poser acte yooyu ñun la ñuy apprécier donc ñun ay daañu recruter cinq mille wala loolu ñun loolu yëngu bi maintenant jàngalekat yooyu dañu ni su dee effectivement dañ leen di recruter nañ leen recruter ci yoon nañ leen recruter ci transparence li ñuy bañ mooy li fi amoon ak ay gouvernement yoo xam ne yi dañu jiitu woon nga xam ne dañ doon recruter ay jàngalekat ci ay anam yoo xam ne yi dëppoowul ak anam yi nga xam ni dañ leen waroon recrutement politique la woon te loolu ñun duñ ko seetaan et dañuy yëkkati suñu baat léegi ca kaw parce que xam nañ ni ñoo ngi jëm ci ay échéances électorales ak ay affaires yu kenn xamul. Hmm. les gens peuvent être tentés di utiliser loolu pour di jéem a xool nan la ñuy def pour régler seeni problème hmm. mais loolu duñ ko accepter. par le passé erreur boobu biñ ko fi defee système bi def ci sooxe ba fii ñu toll nii donc xëy na peut-être bi fii Serigne Mbaye Thiam jaaree moom xoolaat na mbir yi ba vraiment tegaat ko ci yoon donc du ñu nanguwaat aujourd'hui que pour des raisons politiques wala politiciennes que aujourd'hui ñu ñëw di salfaañe ni nga xam ni noonu la ñu war a recruter donc jàngalekat ñun li ñu bëgg moom mooy nañu def ay appel à candidature yu leer nañ. ñëpp hmm. ñi xam ne am nañu diplôme yu leen permettre ñu ñëw def concours ñu def concours ñi ci jàll ñu tàggat leen ba nga xam ni suñ leen dugalee ci classe liggéey bi ñuy xaar ci ñoom daañ ko mën a def. yaa ngi wax sànq ni am na ah, ci seen i naataango yu kon def seen formation ba noppi bokk seen i lijaasa waaye jëlaguñ leen ba xam mën nañ ci am ab xayma. waaw nee naa la maanaam lu ma ci xam moom mooy que ni recevoir nañ ñun suñu siège ay professeur de philo. Hmm. yoo xam ni ñoom formé nañ leen ba ñu am seen KS en philosophie. KS en philosophie. certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire en philosophie. ñooñu juróom-benn lañu. fi may wax ak yow nii. mais ñoo ngi ñoo ngi wëndeelu kenn jëlu leen alors que bare na école yoo xam ni fii ci Sénégal dafa manqué de professeur de philosophie loolu dafa nekk loo xam ni kenn mënu ko comprendre beneen bi moom mooy euh, am na ay professeur sciences physiques yoo xam ni également ñoom tam même chose et foofu li ci gën a garaaw sax moom mooy que ñooñu dañu nekk ay xale yoo xam ni euh, déjà au niveau de la faculté léegi dafa am ce qu'on en fait des masters d'enseignement hmm. ñoom dañuy def master d'enseignement boo xam ni da ngay def benn volet académique au niveau de la fac après nga ñëw école normale def formation mais gis nga ñooñu dañuy def loolu ba pare kenn du leen affecté ba ñoom si seen bopp ku ci bëgg dugg ci enseignement xam nga na ngay dem da ngay dem defar concours bi comme ki nga xam ne dafay soog am licence wala maîtrise fac kese def concours bi at mi dellu siwaat Fastef euh, pour di defaat exactement formation boo xam ne defoon nga ko ba am diplôme bi ba pare man mii wax yow nii am naa sama benn euh, jarbaat boo xam ne loolu la def donc finalement dafa def formation Fastef bi deux fois pour di ñu koy soog a jël ci système bi. beneen bi moom mooy professeur d'éducation physique yi nga xam ni ñoom tam ñoo ngi leen laissé donc en rade donc ñooñu ñun dañu gëm ni su dee euh, yéene ji moom mooy ñu indi ay jàngalekat yu doy ci système bi kese moo tax ñooñu nga xam ni am nañ seen ay diplôme académique dugg ci ay école de formation ñu former leen tàggat leen ba vraiment valider seen formation mais ñooñu dañ leen war a jël nga xam ni loolu dañ nekk problème boo xam ni dafay jeex ci Sénégal kenn dootu fi dégg ni kat am na ay xale yu nekk di def ay grève de la faim parce que formé wu nañu ba pare kenn recruté leen ainsi de suite et cetera et cetera plus que système bi daf leen soxla donc ñooñu dañu war a régler hmm. seen problème maintenant ñi ci des ñu recruter leen. te respecter conditions yi nga xam ni si lañ leen war a. Hmm. donc recruter. bi baax na naam waaye après ah, lu ciy tegu mooy anam yi ngeen di liggéeyee ngeen di yàgg ñaxtu lu mooy kon ay indemnité ay acte yi nga xamante ne war nañ ko xaatim boobu ak léegi fu ngeen ci tollu waaw mais fu ñu ci toll yéen dégg ngeen ñu fan yële ci ginnaaw ñu def conférence de presse di wax euh, président de la république ni que ki nga xam ni mooy jëwriñ bi nekk fonction publique naka wàcc. ndax nag euh, actes yi dañu toogoon di da ngay gis jàngalekat yu bare dañuy ñëw di laajte ñoom seen dossier fan la toll ñu leen mi ngi signature mu nekk signature ay six mois ay huit mois loolu ci réew moo xam ne bi réew mu mel na Sénégal loolu dafa ñaaw sax déggoon ngeen fi président Erdogan mu ni moom mosul tëdd nelaw guddi alors que sur table mu am benn dossier boo xam ni daf ko war a signé nee na mu fanaanoo ko hmm. maintenant fii da ngay gis koo xam ne day laajte dossier ñun la mi ngi signature six mois mi ngi signature cinq mois man damay toog ba mu yàgg ma ni waa mais signature xam naa ni métti na de parce que na nga benn signature il faut mu jël six mois neuf mois xam naa ni signature lu méttee métti la war a doon ñun xam naa ni ñun yi ñuy def si suñu ay dossiers yeeg yooyu yow ak man xam naa ni ñun signature yi ñuy def noonu yooyu ay affaire yu caaxaan la rek mais loolu du signature parce que signature dëgg moom xam naa ni moom lu metti la lu jafe la xam naa. Hmm. ñu wax nag ci eh, anam yi ngeen di liggéeye ci jamonoy mbas mi ñu toll ndax yëf yaa ngi fi donte jëlee nañu fi état de catastrophe sanitaire bi ci école yi nga xamante ne fa ngeen di yëngu yëf yi ah, dafa mel ni bàyyeeku ngeen dorop de sar waaw mais xam nga li xew ci société bi rek moo xew ci école yi. waaw li xew ci société moo xew ci école yi aujourd'hui yaakaar naa ne amatul fenn foo xam ne fii Euh, mesures yi ñu doon wax ñoo ngi koy respecté bëkk démb gis ngeen fii ñu organiser fi ay làmb gis ngeen fii meeting politique yeeg ay affaires yi kenn xamul et cetera et cetera te ñooñu booy xool ñan ñoo ko jiite ñi nga xam ne si réew ñi ñoom ñoo waroon euh, montrer l'exemple ñoom ñoo jiite loolu donc mënuñu reprocher ay sénégalais lambda yi ñi nga xam ni wala xale yi nekk ci école yi wala yeneen acteurs yi déedéet xam nga li ñuy wax naan euh, le yi pour yi par la tête su dee ci kaw ci boppam nit ñi seen bopp matukaay yi nga xam ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo koy jëkk violé mais il ne faut pas s'étonner que à tous les niveaux que ce soit moo tax dañuy sant suñu borom bi nga xamee ni euh, ba fi ñuy wax ak yéen ni Covid bi xëy na ni muy def ci yenn réew yi ñu koy gis ci télé beeg yooyu di ko dégg ci rajo yi. Hmm. defagu ko suñu réew mais loolu dama ni sutura suñu boroom la rek mais du ay matukaay yoo xam ni dañ ko dañ ko jël pour éviter. Hmm. waaw donc dañuy ñaan suñu boroom donc sutura soosu nee na muy mu mu yokk ko rek parce que ñun xam naa ni ñun looloo ñu mën a musal. Hmm. ay bés yi ñu jógee ñu dund lu doy waar ci Sénégal ak fitna gu tar coow li ñu ciy dégg tamit ñu bëri ci ay jàngalekat muy kon seey ni naataango lan moo ci yoonu jàngalekat. waaw xam nga jàngalekat nag bi muy daata nekk jàngalekat dafa nekk citoyen donc euh, li waroon jaaxal nit ñi mooy. mu am lu xew ci réew yi réew mi te dégguñu ci jàngalekat jàngalekat luy xew ci réew rek war nañ ko ci dégg maintenant nag taxawaay ba mu cay am xëy na peut-être loolu mooy def la différence. waaw bi fii mooy ñenn ñi dafa mel ni activiste lañu léegi. waaw mais xam nga ñenn ñi suñu nekkee activiste loolu seen liberté la mais man loolu mënuma ci répondre li tax ñu taxawee noonu ñoom ñoo ko xam mais man li ma xam mooy ñun suñu organisation syndicale taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am. Hmm. mbir yi fi xew dernièrement ñun taxawaay bi ñu am. taxawaay bu responsable te d'ailleurs taxawaay boobu dañ ko amoon bi bi événement yooyu sax di daata am parce que avant événement yooyu di am hmm. dafa am ñun suñu benn collègue boo xam ni dans le Podor moom dafa nekkoon militant di forum civil ñu jàpp ko balaa loolu dafa amoon ku ñuy wax Boubacar Seye bu Horizon sans frontières hmm. dafa demoon tukki bi ñëw aéroport ñu jàpp ko si niñ ko jàppee nga xam ni presque ñëpp déploré woon nañ ko institut ñun déjà boobu la ñu def communiqué boo xam ni dañu ni dafa am ay liberté yoo xam ni citoyen yi constitutionnellement lañ leen ko garantiral et que ces libertés là dañ ko war a respecter te ñun boobu dañu pondre communiqué si communiqué bi ci boppam ñoo ngi doon woo yépp association wala organisation yu nekk ci réew mi yoo xam ni kat yaakaar nañ ni il faut que ñu défendre les libertés publique pour que ñu jokkaloo boole suñu doole def de sorte que liberté yi nga xam ni constitution bi daf ko garantir donc ñu respecter xam donc ñun bi événement yooyu di daata am sax ñu dañu amoon taxawaay boobu donc événement yi bi ñu ñëwee itam même taxawaay boobu la ñu am dañu ni l'état de droit nañ ko respecté te état de droit nag suñ ko respecté wul suñu deful de sorte que réew mi am justice buy doxal yoon mais kooku kenn nekkatul euh, en sécurité dans ce pays te loolu ñëpp ci war a taxaw kooku du jàngalekat du du keneen dama ni képp kuy yeewoo ci réew mi gis ni kat dëkk bi ñoo ngi nasaxal donc justice bi gis ni kat les libertés démocratiques ñoo ngi leen di bëgg salfaaji da nga war a jóg taxaw te loolu ñun loolu la ñu mës a def te du ñu noppee donc di ko def dama ni euh, les politiciens ñoom tam ñoo ngi seen rôle nañ def seen rôle mais ñun li ñuy def ni c'est des actions yoo xam ni dañuy inscrire dans la citoyenneté te duñ ko noppee di def. yow yaay secrétaire général adjoint bu CUSEMS e Ndonga saar ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf merci beaucoup.